ñi nga xamante ne ñoo dem ci jongante njiitalu réew mi daal di fësal seeni programme yu am dayoo bari lool meññeef. wante nag commerçant ak industriel yu Sénégal yi mu mel ni nag yëf yi foqul seen i gët jàng nañ li ñu bind ci seen programme fànn yu bëri am na lu ci des rawatina suñu pegg. naam nag amal nañ ab seetlu ak njàngat soxal programme yi nga xamante ni la candidat yi fësal demoon sax ba kenn ci ñoom daal di toog waxtaan ak ñoom. suñu chiffre d'affaires dafa wàcc ba ay 60 pour cent. depuis mars 2021 nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes surtout en ce qui euh, ay marché yu moderne yu mag yoo xam ne dafay nekk dafay am envergure internationale beneen bi mooy ay banque boo xoolee sénégalais yi léegi dañuy am problème pour accès ci yenn euh, yenn euh, yenn local yi parce que ñee dañuy mën a génn fay triple. secteur informel ñu daal di koy xayma ci ay téeméeri téeméeri milliards ci suñu koppar moom rek ci koomu Sénégal daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom la waral nag yile commerçant ak industriel di ñaax rek njiit yi daal di ciy dugal seeni loxo. dañ ko war a jàppale ndaxte loolee mooy tax. ñu jóge ci benn dem ci ñaar itam dina tax ñu daal di dugg ci industrialisation bi. financer moderniser accompagner sensibiliser voilà ñu dem ci formel mën a méngoog fisc yeeg lépp lu ñu war lu mën a wàccoog ba jamono ji ñu wax yéen nag tooguñu waxtaan ak benn candidat soxal plan d'industrialisation bi buñ sukkandikoo ci ñoom nag ñoo ngi xaatim ak mémorandum ngir daal di koy jagleel ki nga xamante ni nag guddib ñaar fukki fan nag ñeent ci weeru mars mooy gagné élection yi.